lan moo tax nga bëri histoire. man dama bëri histoire. parce que ànd nga ak Aziz Dabala ngeen xeex nga bàyyi groupe bi <laughs> ànd a ñoom Lëbële ànd ak ñoom Mami dem fi ñaari tali génn fi Pikine xam nga léegi sax yaa ngi ci laay ananas xaw ma affaire yooyu noonu. no laay ananas waaw maa ngi koy nuyu sama père boroom borom Hollande ay ni maa ngi lay nuyu di nuyu waa Lines of Africa yëpp loolu compagnie la waaw ñun ñëpp fa fa tase ñun ñu doon ànd ñun xam nga. lu dul dëgg du yàgg ñun ba ñuy ànd depuis 2005 ànd boobu xama nga yàgg na ñu ñuy dem di dem ba yàlla boolewal ñu benn benn groupe compagnie bu ñu naan ah, Lines of Africa as jinne nekk ci nekk directeur artiste waaw maa ngi nuyu sama grand laayana naas ca kaw ca kanam borom Norvège lay dundal man bëriwu may suwaar xanaa déggoo li ma la wax dama ni la man dama am fulla am fayda tey mag yow bu ñu sekkoon benn affaire maanaam bu ma demee di ma woowaat parce que la ma lay wan mooy tax nga may woowaat man niñ ma yaree la man fulla ak fayda ak diiñ loolu lañ ma yaree ak respect ku la mag nga jox ko cër man noonu lañ ma yaree man nag ku ma joxul cër damay gis sam bopp man noonu laa mel. parce que parce que parce que ci investigation yi nga xam def nañ ko avant ñuy la jël. Mhm. que muy Aziz Dabala bi ngeen ànd. moom moo la woo ci groupe am ba pare nga ñëw bëgg incarne leadership bi bëgg jël place am donc mu ngeen xeex affaire yooyu noonu. non Aziz xeex <laughs> Aziz moom laa tuddee sama taaw <laughs> mosuma xeex ak Aziz déedéet. araam loolu kay doom Aziz duñu xeex non loolu amul xam nga nit ñi dañuy wax xam nga ñiy wax moom chaque jour maanaam dañuy tardé rek ngay avancé. kon léegi yow lan nga ñu mën a wax moo la fa jëlee. non kooku ku baax la parce que amay nekk jàmm ji ginnaaw raay moo ma njëkk a gis boole ma ci groupe man noonu laa mel man gisa boo ma defalee lu baax doone que dërëm la loolu dama koy jàpp téye ko Aziz Kollëre li mu ma nee naa ko moo ma njëkk a feeñal clip Aziz Dabala ni koy gisee noonu barke Serigne Touba laa la Cheikh Ibra rek laa gëm man de li ma wan yëfu Baye Fall la ma wan quoi man loolu la ma wan loolu laa ko jàppa yaa may dégg mais leneen lii ñi ñi di wax loolu ñoom la ak moom moom bu fekkee moo ngi koy def moom ak yàlla la fekkee defu ko moo xam yaa may dégg man li ma sekk ak moom mooy respect mu jox ma respect ma jox ko respect. lan moo la jëlee ci groupe Aziz Dabala. non du dara xam nga kuy day ñaari kuy mënuñu bokk mbalka xam nga man damaa mën a fecc piir war nga xam loolu. mais moom moo la daax fecc. ah Aziz moo la mën na ne waaye nit ku nekk ak kala saf. <laughs> ku nekk ak kala saf am déet. léegi yow nan ngay nan ngay nan ngay nan ngay dëkkee Pikine représenté Pikine. waaw man fee bàyyi Pikine bàyyi fi Aziz ndax ndax xuloo ngeen nga dem nga dem nga dem ñaari tali. non loolu laay bañ nga fësal ko maag Aziz mosuñu xuloo maag Aziz bul fësal loolu ñaari tali ba ma fay dem groupe Oscar moo ma fa yóbbu ñaari tali boobu ñaari tali moo ngi nekk si digg ndam Aziz Samb moo rep liyoon Oscar moo doon organiser Oscar bi Oscar bi am niveau yaa may dégg. boobu ma dem ñaari tali xam nga boobu parce que ginnaaw raay xam nga jour bu nekkee maanaam ci equipe dem ba équipe bi mënatu ko fay am na droit équipe bi jaay ko am déet waaw ci laa demee ñaari tali waaw jël fa lu ne waaw yàlla suturaal ma ma am benn grand boo xamante ni Ibou Ngatta lañ koy wax maître en scène la woon waaw ñu liggéey lu bëri ci la ñu liggéey clip Viviane bi champion liggéey ay Idrissa Diop ànd ak Viviane ci ay plateau yu bëri waaw donc ñu gis ne ginnaaw bi nga jógee ñaari tali xeexaar fa comme ni nga tàmbalee bëri histoire nga bëri histoire nga ñëwaat Pikine créer sa groupe mais bi nga créer groupe bi demut parce que donc xale jigéen yi bu ñëwee tey ku ñëw tey du ñëwaat ku ñëw tey du ñëwaat. donc parce que a leen di santas. da da astafurlah ah, non ndeysaan nit ñi ñi bàyyi yàq der waay man xanaa déggoo li ma la wax da waroon a def micro kii. di wër ngay laaj Balla kan mooy kan. li ma war a laaj laaj naa ko pare moo tax tey man musuma santaas jigéen man ñi may àndal maa ngi ànd ak ñoom ba tey xanaa déggoo li la kel bi ma doon àndal pour te dire ba may takki jabar moom laa may deuxième njëkk <laughs> xam nga kon bu fa ànd bu rafet amul woon loolu du am <laughs> te am naa ay mbokk. mais golo ci taaro garab yéeg wàcc wala bëgg yéeg rek. dégguma golo ci taaro garab yéeg wala bëgg yéeg rek. non loolu amu man Ndiaye laa sant benn yoon lay tooy. Hmm. man gaynde laa. Hmm. donc tey Balla la mooy ay projet waaw ah, samay projet bëri na maa ngi nekk ci ay compagnie maa ngi nekk ci ay compagnie waaw ñoo ngi répété waaw yàlla baax na daal ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi répété daal yàlla baax na ñoo ngi naa la invité sax nga am foo ñëw nga xool si bagage yi. Mhm. incha allah. Mhm. naka nga gisee maanaam aaru démb ak aaru tey. non aar bi moom ah, xam nga man damay dégg souvent gars yi naan ay aaru démb ak aaru tey aaru démb amul ak aaru tey. man man pour man amul xam nga lu tax adduna day dox boo doxee da ngay boo boo bëggee da ngay dox ànd ak adduna boo bëggul da ngay resté am déet Maradona kan moo ko dàqoon a football temps am. laaj naa la ko. Ah, dama lay laaj. laaj naa la ko. ah laaj naa ko. kan moo ko dàqoon a football adduna ah jamonoom. laaj naa la ko. mais instant yii Messi Chris ñoo xew ñooñu dañuy taxaw maanaam di classe Messi ak ak Chris àdduna noonu lay demee Sadio Mané mooy star Sénégal gars yi nañ ko nangu mais gars yi am na ñoo xamante ne bëgguñu ko. mais star Sénégal boo xam ne jëlee ko dara El Hadj Diouf mooy star Sénégal. déedéet ballon d'or africain xanaa déggoo li ma la man nang mus du man mës a nangu lool nit El Hadj Diouf ba mu cay star Sénégal. mais actuellement nii nii waaw 2019 bii ñu ne Sadio Mané moo fi ne. waaw d' nañ ko ñaanal El Hadj bi mu nekk bi mu nekk star sénégalais teewul jël na double ballon d'or a nekk mais <laughs> actuellement Sadio Mané amul. waaw dama lay ma laaj ma laaj la benn question. waaw xam nga yaa may laaj question ma la benn question. waaw euh, Sadio Mané carrière am daa jeex. carrière am jeexagul. waaw li ci kanam da nga da nga ko xam. xaw ma ko. waaw kon jeex na nañ ko ñaanal. waaw waaw nañ ko ñaanal nga xëpp sa bët xool. waaw waaw. waaw kon kon Sadio Mané ñu ngi koy ñaanal ballon d'or africain 2019 bii. amiin incha allah mu rapporté ko. muy muy doomu Sénégal. amiin nekk ca Liverpool nekk Angleterre. di ko ñaanal di ñaanal joueur Sénégal yëpp di leen wax ne ñu góorgóorlu jàppale Aliou Cissé bu ko defee Coupe d'Afrique bii di ñëw incha allah Sénégal jël ko. di ñaanal sunu doom yi ndaw yi nga xam ne nga ngi fële si coupe du monde bi ah macha allah euh, ak Malick Daaf ak équipe bi mu àndal yëpp di leen ndokkeel bu baax a baax ci résultat bi nga xam si ni defagun ko ci phase de bi di ñaan coupe bi ñëw naka nga gisee actuellement ne musique bi fi tollu nii. ah musique bi moo ngi def neex de waa vraiment parce que nee naa la àdduna day dox. léegi nit ñi il faut que ñu dox ànd ak àdduna. Mm-hmm. bu njëkkoon lu bëri amul technologie bi doxul lu bëri amul. Mm-hmm. bu njëkkoon boo yónnee xaalis sax lettre ngay def. Mm-hmm. léegi bu la neexee boo yónnee xaalis nga toog sa biir néeg nga tappe mu dem. Mm-hmm. kon addunaa ngi dox mm-hmm. léegi nag bu fekkee da ngaa gumba tëxlu nga ne adduna doxul loolu yow la mm-hmm. yaa may dégg bi moo ngi dox moo ngi neex ku ci mel ni Wally Seck moo ngi koy wal ba mu nooyi keneen ak keneen ku ci nekk na nga bay sa waar aar kenn mënul taxaw ne moom moom aar amul kenn ku mën a taxaw ne moom moom aar tey bu fekkoon aar moom la <laughs> kon <laughs> Youssou Ndour day taxaw ne kenn du way <laughs> ah Papa Ndiaye taxaw ne kenn du fecc kon aar kenn moomu ko. kon su ma la déggee mooy Youssou mooy mooy roi mbalax. Papa Ndiaye mooy roi fecckat yi. Euh, moom waaw euh, roi la référence la mais roi yi dafa bëri ku ci mel ni Pape Moussa Sonko kooku grand grand nit gënu gënu ko ku ci mel ni Ahmed Thiou nit gënu ko Amady Badiane roi yi bëri na. mais man non man awma roi man parce que man dama mën la mën. te góoma de la ñu mën ñoom dama ko mën yàlla nag mooy dogal te yàlla moo ñëwagul mais la ñu mën dama ko mën yaa may dégg mais ay référence lañ ay roi lañ parce que ñoo ngi bay ci aar bi loo xamante ni ku ko gis ndaw bu ko gis di nga bëgg fecc parce que ñoo ngi koy teg ci yoon mm-hmm. fa laay waxee Pa Moussa Sonko mu ñaata nit la dimbali maanaam ñu dem Europe mm-hmm. yor seen seen waa kër mm-hmm. loolu yaa dimbali jeunesse Sénégal am déet yaa may man loolu laa gëm loolu laa bëgg nit ca la nga nekk da nga cay dimbale ay doomu aadama hmm.